jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne euh, tey ñu ngi fii nag ci Thiès Thiaye benn dëkk ñaari gaar Euh, kenn du tudd Thiès Thiaye te tuddoo champion yi nga xamante ni saa su ne dañuy waree fii eh, takk seen ngemb jëm fi nga xamante ni mooy stade Demba Diop wala Iba Mar Diop wala arène nationale ngir lan défendre couleur bi nga xamante ne mooy couleuru Thiès aussi dañuy bëre fii nga xamante ne mooy Thiès yi tey ñu dalal fi champion boo xamante ni kenn du ko présenter magam champion la waaye moom it champion la parce que foo tuddee lamb Thiès di nga ko ci boole muy laa laay gote tey laay gote lañ seet si ngir waxtaan ak moom champion maa lay nuyu waaw salaamaaleykum waa wasaare làmb ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonante bi maa ngi sant samay ñaari waajur di sant suma sëriñ sëñ ab sakoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëñ Muntaxa tamit mii suñ kalifa général mu yàgg fi lool di ñaanal yeneen kilifa diine kilifa aada yëpp ñu yàgg suñ kanam quoi oui. laay tey ma ñëw seet si la fii euh, ci Thiès Thiaye euh, nan nga dundee làmb Thiès ak làmb Dakar. waaw làmb làmbu Thiès ak làmbi Dakar am na différence quoi. lan mooy seen waaw ndax tey jii boo xoolee làmbi Dakar mooy loolu noonu dafa dafa kii daal dafa dafa dafa fekk loo xamante ni Sénégal ndakaaru lañ gën a lañ gën a kii ci làmb quoi ndax ndakaaru tamit mooy suñu capital moo tax lépp lu fay am rek du bokk ak li am ci raison yi quoi oui loolu mooy seen différence. léegi tey ñu dem bay dégg turu Laye Gothé ci làmb lay bëggoon naa xam lan moo la dugal ci làmb yow. waaw man damaa màgg fekk samay mag ñuy bëre waaw su ma duggee ci làmb tey jii nii à cause de yàlla ak Mourou Anta la quoi oui Mourou Anta moo doon bëree ma koy topp di ko seetaan di ko toogalee cumikaay di ko teelay bagaasam dem ba virus bi dugg ma après tamit mooy loolu noonu li muy def neex ma ma doon mbër daal. ban année ban année nga dugg ci làmb. waaw làmb nag xaw naa ci yàgg nag xam nga dañ teel a bëre maanaam di nga dugg ci làmb presque ba def ay huit ans. affaire yooyu noonu te te te te doo xam quoi te ñi tamit duñ la xam ndax moment yooyu da mbapat affaire yooyu noonu mais boo demee ba tàmbalee di bëree arène média bi di la jël ci la la nit ñi di xame mais yàgg nañ ci làmb nag waaw yàgg ci. est-ce mbapat nga yow mbapat bi tax ñu naan mbapat euh, comme tey boo demee Dakar nga dégg soixante-douze heures Père Mbaye Guèye bi dégg euh, mbapatu Père Birahim Ndiaye dégg Père mbapatu Père Max Mbargane yow fii cees mbapat nga fi. waaw comme soixante-douze heures Mbaye Guèye boobu noonu nga wax loolu da am fii Thiès. mbëri Dakar yi waa kay lit Balla Gaye dañ doon ñëw waaw ay ñoom douze ans booyoo yëpp dañ doon juge town di ñëw fii dañ doon juge dakaar di ñëw fi waaw soixante-douze heures làmb di doon trois jours waaw mais presque tegale naa ko cinq ans fii chaque année ma jël ko. yow mi waaw. kan nga ci musa daan final cinq ans yëpp xanaa cinq ans yi at bu nekk dina am. koo bëri naa ko ñaari yoon. ndigal bu géej waay. ndigal ko de Balla Gaye. te bi ma koy daan boobu moom mu ngi bëre arène boobu man bëreeguma arène. boobu mu ngi bëree ci télé bi ñëpp xam ko mu ñëw fa benn bi demi final laa ko daan benn année bi beneen année bi ma daan ko final hmm. Elton Junior bu Géejawaay tamit daan naa ko fi ñaari yoon ñi ma fi bëreel bari na de bari na mbëru temps yi ma fi bëreel yoo xam ni sax génna génnaguñ ba léegi xam nga làmb moom dafa xaw a metti pour nga génn day jafe quoi mais ay champion daal ñoo fi doon ñëw waaw te cinq ans yi ma lay wax yëpp maa ko doon tegale di ko jël waaw ba sama tour dem Dakar ci soixante douze heures yooyu. loolu nga jugee euh, Mbapat dugg ci arène ban année nga dugg si arène. waaw xam naa ay deux mille deux mille deux mille deux mille deux mille deux mille quatorze. ay deux mille quatorze yooyu waaw. sa combat yaa kan mooy sa premier combat arène. man ak Elimane boo écrire Ndufak. waa fii la dëkk quoi Thiès stade la jor la woon Sidi Diakhaté moo ko taxaw taxawaloon. combat préliminaire la woon quoi maa doon bëre premier combat bi. sa deuxième komba damaa bëre premier combat préliminaire sama deuxième combat ma bëre grand komba <laughs> noonu de yàlla dogale benn petit combat laa mos a bëree sama laay fu làmb muy combat boobu noonu li ci des yëpp ay grand combat la. sa deuxième combat nga am kan grand combat. du set bu écrit jaxaaw. nga waajee parce que sa premier grand combat nga dugg si ci arène euh, premier combat bi nga mobiliser indi mbooloo deuxième combat bi euh, nga war a bëri grand combat loo xamante ne bëri na mbër yu bëri dañ ko doon rêvé dañuy bëri ay quatre combats cinq huit combats yow sa premier combat nga bëri ci daan deuxième combat bi yàlla dogal loolu noo ko dundee woon. waaw du ma ko def lu dul di ci sant yàlla rek. ndax loolu moom yàlla mooy bind jaam ñi te yemale wu leen quoi kenn ku nekk ak sa destin kenn ku nekk ak sa wërsëg. mais loolu li ma ko may mooy comme mbapat yi njëkkee sànq ndax man jamono yi may mbapat sax bëreegu ma arène mbëru arène yi maa leen ëppoon coow ndax dama doon wane sama di wane samay preuve ci mbapat loolu moo waral ma bëre benn pré combat préliminaire ñu jox ma grand combat ma bëre ceeg douze sept bu écrit jaxaaw génération ñoom Moodu Anta la quoi doon naa ànd ak ñoom Moodu muy mbapat ak ñoom Moodu yàlla def bañ boole ñu arène man ak moom ma daan ko sama troisième combat nag même sama troisième combat grand combat la tamit booyloo bu roog énergie daan ma quoi booyloo bu roog énergie waaw moo ma daan sama troisième komba loolu tam dégg tukki na mu nga mu nga ma mu nga Corée xaw ma Japon. waaw waaw moo ma daan quoi stade la jor ma jugee fa bëreg métro bu écrit Sumbujun grand combat daan ko jugee fa bëreg Pambay bu écrit R100 grand combat daan ko jugee fa bëreg tribo bu Tivaouane grand combat daan ko jugee fa bëreg Ousmane Gandigal mat si niil ak moom grand combat jugee ci Ousmane Gandigal ñu jox ma mbay guy gi ma daan mbay guy gi jugee ci mbay guy gi ñu jox ma tonnerre numéro 2 ma daan ko jugee ci tonnerre numéro 2 ñu jox ma daabu écrit Texas. ma daan ko waaw huit victoire la quoi. deux défaites benn match mais mais nanga baal ma mais laay ñi fi tudd ñëpp ñoom it ñu jéggal ma mais ah, vraiment ay ay ceebu ginaar rek nga fi tudd ñoo xamante ne moom jàpp rek mu tëdd. Ah, xanaa euh, champion bay guy gi nga xam ne depuis bi mu yokkee repas ba léegi gis nañ li macha allah yokk na mais à part loolu mais mbay euh, nu mu tuddati laay gote vraiment ay nga baal ma mais ay fuusaa rek nga fi daan quoi. non ñi ma la tuddal déggoo li ma la wax ñoo gën a doon sax mbay guy gi mbër. man ñi ma daan ci làmb ji ñi ma daan ci samay combat mbay guy gee ci gën a nooy moom laa ñëw ci stade bi xam ni kii ni ma ko mën a jaaduwul. mbay yi muy lekk ak champion bi bu door bàyyi na maam Cheikh Ibrahima Fall waxuma ko pour tooñ ko waxuma ko pour draay ko de ñi ma daan sama carrière yëpp mbay guy gee ci gën a nooy moo ci gën a télé bëre moo ci gën a bari wax tax na ba moitié làmb ji yëpp sax ci ngaamu bi dafa war a bàyyi waxam ju bari ji te bëre da wax ju bari ji te nga maa man ji ma lay wax nga koy bañ dama lay daan ba pare di continuer di wax ak yow ndax yow yaruwoo da ngay régler ñu dem maa la man fuuf boo noppiwul rek du ma noppi man ndey na mbuubee sama yaay <laughs> da ngay régler rek ñu dem non garaawul au ma problème loolu fii koo fii bëril na xam sa turu yaay na xam sa turu papa waaw mais yaa ma gën a xam <laughs> mooy loolu Sénégal moom daa fi mu toll nii mbay guy gi dafa nekk ci contrat moom tal na li wolof leneen lu dul tëbiteen mais lan moo tax nga singili mbay guy gi lan la. non moom moo ma singili mbay guy gi dama koo daan mu topp sama ginnaaw naan damaa soge ci di saltel damaa soge ci scooter ba yàq bu feeñ laa bëri waale buñ la daanee da ngay nangu ñu dem man bi ma toogee fii laajoo ma sax samay defet man la booyloo bu roog énergie damaa dóor ma daanu estade la jor Pape Ndoye booy gri phase lu ma damaa nangu ñu dem buñ da ngay nangu rek ñu dem coow li wàcc mais moom dafa war a xam ni man ni ma ko mënee jaaduwul man ni ma ko xamee sax dafa ëpp bi ma dugg see ci stade bi dama ni kii moom bu ñu defee trente secondes bu yowoo gars yi ma li ma ko daan matul sax trente secondes arbitre daa soufflé ma cokkaas ko yaa ngi may dégg taxaw di ko xool maa ko daax a bëre fuuf ndax li ma li ma def ci làmb ak li ma tarbiyewu làmb moom tarbiyewu ko yaa ngi may dégg gis dama ko cokkaas muy fayu waaw mooy loolu dama koo cokkaas xaw di ko xool rek xam naa day ñëw foofu noonu di teg sañ-sañ mu xaatu dóor ku erreur ma reculer deux pas mu déclenché waat ma juwaloog moom bi ma juwaloog moom li ma ko doon def sottiwul sax mu tëdd. moo tax man la moo gën a nooy ci ji ma bëreel. mais nag yaa ngi attaque mbay guy gi mais boo ñëwee dakaar di nga xam ne làmb Thiès ak làmb Dakar parce que damay dégg ci ci ci waxtaan ñu bari ñu naan mbëru Thiès yi nangu ñoo génn ñëw ñëw ñëw Dakar fight comme seen morom ñoom li ñuy bëgg mooy combat à domicile Thiès wër leen ñu ñëw yëngal stade bi bëree daan parce que loolu dafa yomb lan moo tax yéen ngeen gën a bëgg bëree Thiès que que que bëree Dakar. non loolu moom xaj na ñoom ñooy baax noonu rek di ko wax mais loolu ñiy seetaan làmb sax xam na ni ñun loolu du suñ dund ñun ñu génn bëre ji dakaar wala ñu génn bëre ci beneen région sax moo ëpp yërmande ci ñun ka ñuy toog cees di bëre yow génn foo xamante ni du sa dëkk ka nga fay bëreel yaa ngi may dégg pression bi yëpp ci moom lay ci moom lay nekk mais bëre sa dëkk ful bi yëpp génn waa dëkk bi yëpp génn nekk sa ginnaaw loolu dafa metti moo tax chaque jour dama koy wax ni man bëre dakaar sax moo ma gënal bëre Thiès te ñun làmb làmb la rek fu ko bëree làmb la essence yi comme seen comme yéen li ngeen di def nii dafa am solo ndax fépp fu mbër bëre ci région de Sénégal yaa ngi may dee gis nga day am média da ngeen koy jël ñëpp dañ koy seetaan kon essence yi nii bëre bëre la rek foo bëree bëre la en tout cas daal na nga bëre fu média bi nekk quoi. oui mais ñun nag taamuwuñu ay Thiès quoi loolu moom damay faral dégg gars di ko wax mais Mour Anta ñaata combat la bëre Dakar bari na man mooy loolu noonu sama première sortie dakaar grand combat laa fa bëre man ak Mbaye Guy gi deuxième bi noonu man ak Tonnerre 2 kon bañu ñu bëre Dakar quoi luñ mënte am bëre Dakar ñu ko gënal waaw di leen fa fekk di leen daan. mu toll nii dafa mel ni euh, mën naa ni daanaka seen kër. lekk ngeen benn avance yow mu euh, xam naa ne xaw tuut incha allahu rabbi sa combat bi may dégg euh, tuut rek xam naa ne moo ci des taxaw na daanaka ci yow taxaw na ci yow taxaw na ci sa adversaire kon maanaam lan moo ci des. waaw instant yi nag mooy loolu comme li daloon sama grand frère Moodu rek xam nga Gaston discuter woon naa ak ñoom après toogaat lu mat quinze jours quoi di door indi avance man tamit noonu la demee quoi gars yi waxtaan na ak ñoom pour sama combat ak anti ba leen sama accord. mais xam nga rek làmb moom du noonu lay taxawee dañoo nekk xam naa seeni seen i dernier réglage mais buñ pare rek après dinañ génn avance bi quoi combat bi taxaw oui. Euh, su ma jumul dafa mel ni waa Equivox ñoo ko tëgg. waaw ñoom la waaw ñoom la. d'accord ngeen accord yeeg lépp nangu ngeen. waaw accord yeeg yëpp nangu nañ quoi sama camp waaw sama camp nangu naa te anti tamit su ma juumul dégg naa ne nangu na quoi kon ñoom ñoo ci des quoi ñoom ñoo nekk seen i dernier réglage pour génne xaalis jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël siti te xam nga ni Siteu moom maanaam du wér loolu moom on a disconvain même pas lan moo tax nga jël anti. non anti du mooy loolu anti du Siteu de. ah anti kay lan laa ko mën a tuddee est-ce du pain wala. Euh, la dégg nga ko moo tax Anta laay goote laay goote yaa ngi bëreeg mbër yegg goog ci boobu laalee góoleel nga commencé naan pain oleeg euh, kii. non moom champion la sax. anti champion la yaa ngi may dégg gis nga. jënd na glace de. anti champion la. yaa ngi may dégg gis nga mbër la wane na ay preuve am ay supporteurs am dañ koo sax gëm nag. yaa ngi may dégg waa làmb ci so dañ koo gëm ndax day ñëw teglu lu leer mais man peñole la ci man. tax nga ni peñole la. non la qualité yi bokkul. yaa ko dàq ko dàq xeex. fuuf. yéen ñaar ko ëpp nombre ko ëpp man onze combats la bëre huit victoire deux défaites benn match nul. onze combats huit victoire deux défaites benn match nul. Mhm. kon daanaka lépp lu mbër di am ci làmb am nga ko am nga victoire am nga défaite am nga nul xam nga bu ci nekk lu muy saf. waaw bu ci nekk xam naa lu muy saf mais défaite moom baaxul moom. Hmm. boobu gën a bon amul lu muy defar day yàq rek. ku ko mën a moytu. nga moytu ko bu baax moo tax lu ñu la fay rek da nga ko war a def ci làmb ji. pour bañ a daanu quoi défaite day yàq rek amul lu muy defar boo daanoo di nga dégg lu ne. te boo daanoo ñi nga maaseeloon dinañ la supérieur tuuti buñ daanee defet daal yàlla nañ ci yàlla musal quoi lépp luy ñëwaat suñu carrière làmb yàlla na yàlla na doon ndam quoi. ci barke Allah sa ban combat moo dàq ci combat yi. bu gën a neex. waaw sama premier combat bi ma la doon expliquer sànq man ak Elimane. waaw ndax bi may bëree jeeg moom dañ ni laay mënul xeex bëre simple rek la man ndax bëre simple du bëre door ak yooyu ma ñëw duma ko sax nag faf ba pare yenn ko ba ci kaw dóor ko ci suuf moo ma gën a neex.